ahousubillahi mina sheytaan rajim bismillahi rahmaani rahim salaatu wasalaam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala fala taxlamu nafsun maa uxfiya lahum bi maa kaanu yamaluun maa ngi lay fay alay gisaan joogu di nuyu ñu ñu bokkal plateau bi ñëpp di nuyu képp ku ñuy seetaan ci biir réew mi ak bitim réew di nuyu bu baax sëriñ Muntaxa xalifa général de Mouride di nuyu Cheikh Mouhamadul Moustapha ibnu Cheikh Sidil Mokhtar Mbacke di soxna May bintu Cheikh Sidil Mokhtar di nuyu sëriñ Abib Diop di nuyu sëriñ Xaadim Diop di nuyu sëriñ Amadou Haysa Mbacke ak sëriñ Abdou samat sëriñ Jiili sëriñ Abdou Latif ak mboolem njabootuk sëriñ bi yëpp di nuyu sëriñ Abdou Khadir Ndiaye di xalifa sëñ Darou Assane di jaaleek euh, njabootuk sëñ Massamba Oumy Ndiaye gépp parce que sama xalifa sama rakku papa di sëriñ Ahmadou Bamba Ndiaye di xalifa sëñ Massamba Oumy moo euh, génn àdduna keroog altine hmm. la faatu ñu yóbbu ko ca Taïf ca wetu sëriñ Mbàkke soxna loo jàmbaaram euh, sëriñam di ko jaal waa daaru jaay gépp di ko ñaanal yàlla mu yokk ay leeram di nuyu di ñaanal tamit sama mag sama xalifa bu bees muy sëriñ Baara Ndiaye nga xam ne mooy sama mag léegi moo fa nekk suñu xalifa mu sëñ daam xari ñu ngi koy jaal te di ko ñaan yàlla yan bi mu yanu euh, xilaaf ak yàlla wayafal ko di ko jaale sëriñ Maxtaar sëriñ Basiiru sëriñ Muntaxa soxna Jekka ak mbooleem njabootu sëñ Masamba Oumy gépp Cheikh Bara Ndiaye borom def gis macha allah tey bi may ñëw am na ñu bari ñoo xam ni